yéenekaay yi. dencante ak El Hadj Assane Gueye. yéenekaay yëpp maase dellu si ci màggaluk cheikhul xadim gi ñu amal altine ji ca Touba Mbacké direct news ngir fësal liggéey bu mag bu cheikhul xadim ne juróom-ñeent fukki at ak juróom-benn ginnaaw si ba tey moom cheikh Ahmad Bamba xadim rasul ci xol yi teg ca lu jege juróom mbenn di millions ngi doomu aadama teew ca Touba observateur moom ñëwaat ci kàdduy ku sell ki Serigne Mountakha Bachir Mbacké ne kàdduy kilifa dëgg la fa yëkkati bokk na ca xamal aji politique gi ne nguuruk àddina jarul yàqal benn doomu aadama bis bi le jour jàpp moom ne leçon bu mag kay la joxe moom xalifa bu tedd bi keroog ci cérémonie officielle bi ci teewaay ak njiital xalifa bu Serigne Fallou Mbacké Khadim Rasoul Serigne Abo Falilou xalifa bi di sàkku ci ndaw ñi ñu def nekk moomeel royukaay njàngale ak li nga xamante ni mooy ndonduk Khadimu Rasoul yéenekaay bi di réew mi moom ne ku tedd ki Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ñett la dénkaane mooy jàmm cofeel ak njëggale Sud Quotidien ne ci woote bi nag kilifa gi bàyyiwu ci kenn du gi du bi naalu ministre intérieur Félix Antoine Diome muy ziar xalifa bu yéenekaay bi ne état bi dogg na ci wéyal chantier yu mag yi nga xamante ni sumb na ko ca Touba Le Soleil xamal ñu it ne fukk ak juróom-ñeenti réew yabal nañ fay délégation ci màggal gi waaye li ñuul ci mbir yi maanaam wàllu accident yi yéenekaay bu ànd ne fukk ak juróom-benni bakkan rot nañu ci màggal googee ci ay accident source a dëggal ko ne ba démb fukk ak juróom-benni bakkan rot nañu ci yoon yi ca li ci ëpp ñu ngi ko xaymaa ci route nationale bi ndax foofee fukk ak ñetti bakkan lañu fa xayma source a di ñu it nettali chauffeur bu yéegoon ca porte bagage wataam di noppalu ginnaaw bi mu bàyyeeg apprenti bi muy dawal mu waddee ci boobu porte bagage ñàkk bakkanam source a ba tey ne diggante Touba Mbàkke ak Thiès juróomi boromi moto Jakarta faatu nañ ci le point moom fësale nataalu Cheikh Bassirou Mbàkke moom Serigne Abdoul Khadre ci yiw gi taar ba ak yar gi yéeni kaay bi ne saguk Touba dëgg la porte la it à l'état kaay bi ne moom Serigne Bassirou Mbàkke Serigne Abdoul Khadre di turandooy waajuru xalifa bii tey Serigne Mountakha Bassir ne ku ràññiku la macha allah ci daraja ja njàng ma yar ba yéene kaay bi ne exemple la ci sëti Cheikhul Xadim Bougane Gueye Dany njiital gëm sa bopp moom it maggali woon ci la tribune jàpp na ne Touba Mbacké mérité na lu ëpp fukk ak ñeenti milliards yi ko nguur gi baaxee at mucca ne xamal na it ñi ngànk nguur gi ne dañu war a gën a xam solo yi njëggale ak jéggal dañuy des ak la tribune waxtaane politique ak lu ñeel candidat Benno Bokk Yaakaar yi présidentielle 2024 la tribune xamal ñu ne samedi lañu koy xam boobee candidat yéenikaay bi ne biis la nag bu lu ne xaj ngir waa Benno Bokk Yaakaar ndax Macky Sall nag day wéy di doon njiital APR laaj la bu yéenikaay bi yëkkati teg ca xamal ñu it ne am na alliés yoo xam ne ñoom ñu ngi rek yeeru di xaar tànneef gu dëppoowul ak bi nuy xaar ngir ñu mën a yëglu jël seen yoonu bopp ñeneen ñuy wër wala tànn candidat di waa Pastef bu nu sukkandikoo ci source a yéenikaay bi ne ci seen biir tàmbali nañu waxtaane ñoom waa Pastef beneen candidat bu dul Ousmane Sonko moom laaj bu mu def mooy Amadou Ba dafay dem wala muy des ci primature bu Sénégal Sénégal ginnaaw remaniement bi ñenn ñi njort ci fan yu yàggatul yéene kaay bi ne moom la mu bëgg mooy wéel mission bi donte am na obstacle ci kanam di wàllu déclaration politique générale le quotidien moom mel ni ku ñuy fàttali njaboot gi ci Sénégal xale yi dem rek ci Barça gi lu toll ci junni candidat yu nu kar ci ñaari fan observateur moom ñëw ci yoon wu bees wi nga xamante ni gone yi jël nañ ko di yoonu Nicaragua bi ak i musibaam ci yéene kaay bi seedey kuñ naan Moodu fanweer ak benn ci at la muy nettali ne ñetti yoon sox nañ koy bal muy mucc waaye xarit bi mu àndaloon mu ne jot na moom benn bal ca ngaam diggante Mexique ak États-Unis fa la musiba yi ëppee sport gi la ñuy jeexale gaynde yi waajal match xaritoo seen digg ak Algérie yéenekaay bi di stade ne équipe bi mat na ca stade président Abdoulaye Wade gënuy tàggatu jamono yi ca Diamniadio Aliou Cissé ci yéenekaay bi xamal ñu ne Formose moom am na lëf lu koy metti ca cheville ba Idrissa Gana Gueye mu ne moom yegsi na ak forme ci tanière bi gune yi mu ne ñoom ñëpp noppi nañu wàllu làmb ndorteelu at mu neex 2024 incha allah ci amateur yu Sénégal 1er janvier 2024 lañ leen di tëggal Modou Lo Boy Niang sunu làmb moo nu ko xamal DSL